dal leen ak jàmm ñu xëy naka tàqan yi yéene kaay tàmbale naka tàmbalee ka enquête yéene kaay dikkaat nag ci dëgg weqat yi nga xamante ni Macky Sall na ko wax ci ndajeem ak Poutine opposition naka loolu yëpp na boobu dee naka produit yu ñu jàpp leen ab ndool di xiif bu méttee métti nag moo ngi yoot loolu naka faaw mu am kon naka ngir ñu mën a li nga xamante ni si moo di ndool boobee naka ci biir yéene kaay bi nag mag nee daal moom moomee naka kenn mësul ko na invité ca Kiev loolee tax demu la mu xam naka moo moom la Macky Sall wax la yoon dal samp ab laaj nag ne gannaaw bi nga xamante si opposition bi naka génn nañu xirtu naka yekk lu mel ni xemee naka nguur Macky Sall gaayam naka la mu laajte moo di ana ban riposte rek la Benno Bokk Yaakaar war a indi tontu boobee nag mu mel ni direct news moo koy tontu naka ci xëtam bu njëkk ubbil yéenekaay bi attaque de Sonko ak itam opposition bi jëm ci nguuru Macky Sall yéenekaay bi ne na ana fan rek nag ñi ak Macky Sall waaye itam ñi xamante ni si ñoo màngaan si Macky Sall féetee ndax ji kenn déggul leen si jamono ji nga xamante ni Macky Sall moom ku jéegi ñoo ko mel ni xemeen ndax ñoom ñu si bëri naka ku ci mel ni Bamba Fall ak i directeur généraux waaye itam ay ministre coow li lu muy bëree bëri naka ñu ngi ne putuus kenn déggul leen ñu yàbbi kenn déggul ñu wax ci nag mu mel ni mbir mi moom dañ cee ragal wala la dafa am leneen lu ci laxasu ci waxuñ ko en tout cas doy na war de ci jamono jooje moom ji naka ne nañ ko ci yóbbu gannaaw bi nga xamante si dafa yëkkati ay kàddu yu tegginewul naka ngàcc ko si jamono ji ay kàddoom ci tee mooy nga xamante waa coalition yeewu askan wi nañ ko naka contre offensive bu Benno Bokk Yaakaar ñoom naka dikki dému naka taxaw nañ Macky Sall addu foofee ca France Macky Sall mi moom kenn munta muusa

marché naka du amati ci réew mi loole moom moo ko wax te moo ko garanti jàppale nag ci jamono jooje benn waaye naka benn agresseur la naka bu yoroon pistolem topp ab soxna foofee ca maris nag moom moomee naka mujjee nañ ko jàpp naka dóor ko ba muy bëgg a dee ba gendarmerie moo ko mujjee rawale mbir yooyu naka moo nga xewee niki démb ca maris ci réew mi fu ñu jëm ak ñàkk kaaraange ñuy wax waxu politique rek ñu waxaat ci libération naka ak mbirum naka Cheikh Abdou Bara Dolly mii naka gannaaw bi nga xamante ni si enquêteurs yi naka daal nañ koy tiyee moom Bara Dolly la wax ci kanamu enquêteur naka moo di waxuma suufu dara ku nekk nag ak nanga ko déggee <laughs> loole la Cheikh Bara Dolly wax ci kanamu enquete bi ci sëriñ bi danga ngaa bëgg a soppi ay waxam <laughs> ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg